moo di sénégalais waaye tey ma bett ko bett boo xamante ne dama ko fekk ci waañ bi jàpp ci loxo bi dee ko dama bëgg rek ñu toog tuuti waxtaan ak li nga xamante ni moo di sénégalais ci bés bu màgg bi nga xamante ni moom la ñuy dund tey Kumba bu ndaw euh, borom infidèle maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare delloo ziar sëñ bi maa ngi lay nuyu di nuyu internetu Sénégal Buzz yëpp ak di nuyu nit ñëpp partout dans le monde sama fans yi ñëpp mm-hmm. macha allah yaa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñoo lay bàyyi xel à travers Sénégal Buzz 221 waaye ci ni ma ko waxee rek tey ñu fekk la ci bërëb bii di Touba ngay dund li nga xamante ni moo di màggal gi naka nga yëgee mbégte màggal gi. kontaan mm-hmm. ndax ñun ay murit lañu. Mm-hmm. gëmuñu ko dul Serigne Touba donc bisam bii nii xam nga ne bu jotee. Mm-hmm. dañuy mbég mbégte rek lañ ci àndal. taxawaay bi nga xamante ne murit yeeg tijaan yeeg yëpp àndandoo nañ ci ngir màggal bés bi nii euh, jugandoo bi ñu jugandoo ngir kenn wala yëkkati diine ngay doomu jullit loolu aussi naka la la def ak lan nga ci yëg. kontaan parce que Serigne Touba Serigne Touba ñëpp la murit yi kese bokkuñu ko. Mm. da ngay ñëw ci ci dal fekk murit laa laayeen ndax ñëpp xam nañ ni moom yoonu yoonu lislaam rek moo ko taxoon cug mm-hmm. donc mbig kenn du Serigne Touba. <laughs> ma la nga nekk ci waañ bi di waajal li nga xamante ni tey moo di gan yi mu mel ni tey yitte bi lenn la rek mooy toppatoo gan yi ba ku nekk rek bëgg. waaw loolu lañu sëriñ bi sant mm-hmm. nanu berndeel nit yi ñu mm-hmm. lekk ba suur naan ba màndi kontaan loolu la sëriñ bi bëgg si la ñuy nekk toujours sax dafa fekk ne bisam bii nag dañuy gën a yokk parce que nit ku nekk da ngay jóge sa dëkk ñëw ba fii malgré ñun dëkkuñu Touba mais fii nuy nekk dafa mel ne ñu ñëw fi dëkk donc dañuy recevoir ay nit ñu ñëw ñu teral leen ba nu tedd ñu ñibbiwaat incha allah mm-hmm. comme ni nga koy waxee rek euh, tey Serigne Touba defal na la loo xamante ni tey boo génnee sénégalais ak ku ne euh, bu ñu la gisee seen xol day sedd tey euh, loolu tey Serigne Touba defal la loo ko ñaanoon la wala lu loolu la loo xamante ne xéwal bu ñëw ci yow sëñ bi dama bokk ci njabootam. li nekk ci sama xol daf koy gis. ma koy ñaan moo koy defal nii. aw ma fayam. seriñ Touba li ma sëriñ Saliou defal maa ak yàlla rek a xam waaw parce que voilà doo mën sax toog di expliquer lépp. ci loolu a sa diggante ak sëriñ Saliou. sama diggante ak sëriñ Saliou dafa dafa <laughs> dafa kéemaane. Mhm. genre mën naa ni seriñ Saliou dafa ma fekk si yoon may dem mu yëkkati ma teg ma ci wetam. loolu laa mën a wax defal na ma ay xéewal yu bëree bëri mm-hmm. tax na <laughs> Sénégal yëpp mën naa ne bëgg nañ ma tey mm-hmm. ndax Serigne Saliou avant sax affaire série yi nit yi xamoon nañ ma ci bëgg Serigne Saliou ñu bëgg ma ci série bi ñëw gars yi di ma gis naan naan kii taalibe Serigne Saliou la gën maa bëgg ndax moom dafa maa defal ay ay tawféex yu bëree bëree bëri barki Serigne Saliou maag yàlla rek a xam maa ngi koy sant bu baax te di ñaan yàlla comme ni may mbégte bi may am chaque jour bu ma yeewoo gis que jàkkaarloog moom sama téléphone wala sama salon mbégte moom may ànd ak amour bi may am ci moom maa ngi ñaan yàlla chaque jour muy gën a yokk yàlla bu mu mës a macha allah loolu di kàddu yu am solo ci li nga xamante ne nag euh, noonu lay dundee Serigne Saliou Mbacké waaye man tey damaa am loo xamante ne aussi daf ma bett ah, ndax it kumba bi may gis ci série bi ak kumba bi ma jàkkaar loolu tey mu nekk ci liggéeyal Serigne Touba bi man daf ma bett man. mais Kumba euh, personnage la. Mhm. man Khadija. Mhm. taalibe Serigne Saliou laa. Mhm. te awma ku dul yoonu sëriñ Touba bi. peut que. tey da ngeen ñëw fekk ma ci màggal mais liggéey bi si laa nekk chaque jour. Mm-hmm. maa ngi liggéeyal Serigne Touba chaque jour chaque jour chaque jour. waaw li euh, nga xamante ne noonu nga ko waxee tey boo toogee. Euh, image bi nga xamante ne yaa ngi koy génnee nit ñi di la seetaan ci image boobu mu am ay critique naka nga koy dundee. waa dina metti tuuti du metti mm-hmm. parce que man duma metti parce que xam naa esprit sénégalais yi et ñun ay jaam kese lañu. nit nit ñëpp mënuñu d'accordandoo ci lu nu nekk mais nit yi bu nu mënee difeere personne ak personnage rek dina neex parce que Khadija ak Kumba bu ndaw du benn c'est diamétralement opposé nit rek laa nag ndax des fois yi Kumba bu ndaw di def mën naa am def erreur ba def ko wala topp sama folie de jeunesse ba def ko wala de choses comme ça mm-hmm. mais nekkul Khadija moom mooy Kumba bu ndaw mm-hmm. ñu bëri ñàkk jàpp li nga xamante ni tey xëy na moom la kumba di wane jàngale la waaye dañu koy gis ni est-ce que nekkul image boo xamante ni euh, day tourner bopp xale yi ci li nga xamante ne moom ngay joué. pourtant non man gisuma ci loolu parce que boo seytaanee série bi depuis ma euh, ma intégré ci ci lu euh, mu tuddati infidèle ba tey boo xoolee personnage Coumba bu ndaw ni muy évoluer wee boo bàyyee attentivement di nga comprendre. par exemple li ma ci mën expliquer mooy xale bu jigéen boo xamante ne macha allah yàlla daf ko teral mi ngi noonu mi ngi noonu léegi kooku dafay foog ne ci àddunaam lépp lu mu war a mën a am rek euh, atome yi ko yàlla may loolu la war a mën a def ba am lépp lu mu bëgg mm-hmm. est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. loolu dafa exister. Mm-hmm. dafa exister mm-hmm. mais loolu jàngat la parce que baaxul la fooy mujjee du baax. ndax boo jàppee ni saa yi atu moo lay yóbbu fu ne am na ñoo xamante ni loolu frégewu leen sax. mu doon tendance boo xamante ne aussi comme ni nga ko waxee dafa bëri ci dëkk bi jamono ji ah, jigéen ñi jàpp nañ ni seen forme wala seen yaram moo leen war a mën a may lu ne. xalaatatuñ ko ci liggéey xalaatatuñ ko ci ñaq wala toog xaar mu ñëw mais gën nañ ni ah, bu ñu jongamawee jekk tour rafes nekk 90 mën nañoo def leen saf. parce que boo yaakaaree ni sa ay forme wala sa rafetaay day jeex day jeex on sait jamais yàlla mën na xëy suba fii peeral li nga yore woon yëpp ñaanaluma ko kenn wala nga def accident dootoo mën li nga mënoon est-ce que di nga demaat fi nga doon dem pour wane sa ay atu pour avancer est-ce que di nga pour avancer duñ la sax xool mu ngi noonu donc ay atu moom taxul nit ki avancer ci àddunaam nanu góorgóor lu wut xam-xam jàng voilà euh, am lu nu bëgg sunu àdduna lu bokkul li nuy dund actuellement blâmé wu ma kenn nag mais waa phénomène yi ngay gis moom dafa doy waar macha allah yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. mu mel li nga xamante ne actuellement moo nekk ci société bi moom ngeen di wan Sénégalais yi euh, Sénégal tey ñu bëri dañ ne boo leen di li nekk ci société bi dañuy jàpp ni da ngay yàq société bi ñaat nan ngay comparer ñaar yooyu. Euh, am nañu comprendre nag mais am na ñoo xamante ni comprendre lul parce que dañuy foog ni da ngay yàq yàq moo la tax a jóg mais man infidèle li may wax chaque jour. jàngale rek moo nekk ci biir parce que man am na lu ma xam ci infidèle loo xamante ne mosuma ko xam xaw ma woon yenn magu yu bëri am na yoo xam ngi existe fii te maa ngi koy gis ci infidèle après ay nit dañ lay message bu benn épisode jàllee naan la pourtant dund naa lii dund naa man bëri na séquence yu ma ne damay pare ñu may message Instagram naan ma dund naa lii dund naa affaire yooyu noonu donc nanu nanu seetaan série bi ñu seetaanee ko xel bañ ko seetaanee xol parce que Sénégal dañu toll toll ci jamono boo xamante ni boo kaalawoo def kii nii ñëw toog di jàngale duñ la faale de <laughs> il faut que ngay laal laaw ça fait pour que ñu mën a bàyyi xel li ngay c'est juste ça mais jàngale rek lañ ci jublu. du pour yàq kenn parce que da ngay gis koo xamante ni man tase naa ak nit bu dul benn du ñaar lu may wax naan ma. ay yéen seen épisode bii de bi ma ko seetaanee dafa ma rappelé lu bëri et jàngal na ma. Mhm. yaa ngi gis loolu. Mhm. mais am na ñeneen ñoo xamante ni peut-être que du ñu xalaatee fi kooku di xalaatee wala des choses comme sax mhm. donc nanu nanu ki seetaanee film bi xel. te bañ ko seetaanee xool. ñu jàpp ni ñu bari jàpp ni euh, li ngay joué moom ngay dund. <laughs> man gis nga ma ni bu ma doon dund loolu aw ma taaw nekk fii. du ma doon dund loolu aw ma taaw nekk fii nii. du lu ma loolu. taalibi Serigne Touba laa am na loo xam dama koy jombale sama bopp liggéey nag moo ma booleeg série bi te li ci war dama koy def ba mu mat sëkk parce que moom moo may teral si laay teral sama ay waajur. Mhm. yàlla foofu la yóbbu sama destin donc mënuma ci dara épisode bu nu ma séquence bu nu ma ci jox. nin ma ko joxee dama koy joué ba mu neex bu ma génnee yére bi foofu laa koy bàyyi après dem ñibbi Khadija ngay fekk këram donc meluma noonu. damay faral di toog ak ay magu artistes wala ñenn ci ay artistes bu ma waxtaanee ak ñoom ci lu mel nii dañu may xamal ni am na rôle yoo xamante ne du ñu leen ko jox ñu joué ko Coumba dafa amul choix moo tax luñ ko jox mu joué ko wala lan la. non du question de dafa amul choix mais li ñuy joué actuellement dafa nekk loo xamante ne moom moo nekk ci dëkk bi loolu la mag yi seen série maa ngi jéggalu nag balaa ñu may clash mag yi eh. genre série yu ñu doon joué ñu ngi doon jàngale di yeete mais nit yi daawuñu ko dem seetaan mais xoolal infidèle mais ñoom seen seen mentalité bi nu amoon mooy que yii duñ ko joué yii duñ ko joué mais mentalité léegi nit yi je pense que mi ngi mi ngi mi ngi gën a mi ngi gën a yaatu bëgg di dundu duñu jël comme par exemple am na benn série bi moom a seetaan mm-hmm. kooku dañ ko doon taxé de yàlla ma yàlla baal de puces mm-hmm. après dama dégg mu naan affaire yi daf ko topp parce que moment boobu noonu gars yi dañu dañu doon naan yow li ngay joué rek noonu nga mel mais instant bi nit yi ñu ngi yeewu xam na ne nit ki li muy joué melul noonu voilà ñoom itamit am nañu plein droit ni ñoom role bi bu ñu leen ko joxoon duñ ko joué am na plein te am nañu seen ay raisons aussi yu tax peut-être ñoom dinañ ko expliquer mais man j'ai pas de problème lenn daal laa xam ne du ko lu ma loo xamante ni du ma ko def mooy film yoo xamante ne ay voilà yaa ma gën a xam. <laughs> waaw waaw loolu moom laa xam ne du ma ko joué. Ah. mais leneen luñ ma jox incha allah rabbi dinaa ko joué. nañ à chaque bu clash di am ci actrices yi dañu koy seetlu euh, dañ la ci joxeñ baaraam yow ak ki nga xamante ni tey moo di Léna ci am sañ-sañ ñeme joué lu ne loolu naka ngeen koy dunde <laughs> lu nit ragal a joué Kumba bu ndaw ak Leena ñoo koy joué ma nuyu ko au passage. <laughs> du question loolu ñeneen ñeneen <laughs> gars yi li nit yi du joué rek la ñuy joué c'est juste que suñu personnage ni muy évoluer rek la mais c'est pas parce que ay da ñii nit dañ ko ragal wala yooyu ndax gis nga infidèle ku nekk ak sa sa li nga li nga xamante ni sa personnage ni mu war évoluer woo yaa ngi koy doxal ba mu mat c'est juste que Kumba peut-être que lii la war évoluer woo keneen Leena aussi même chose keneen ak keneen maa ngi koy nuyuwaale sama sister boobu. ñeneen wax man toog naa ci ak ñu ne jigéen du rôle bu ne la war a jouer ndax ëllëg da nga war a am jëkkër danga war a am doom euh, te image du dañ ak par rapport li nga xamante ne Coumba mi ngi koy affiché ci kanamu Sénégalais ñu koy gis yooyu wax ndax yaa ngi koy bàyyi xel. dëgg la image du dañ mais man si li ma yaakaar sama xam-xam bu gàtt. parce que su ma waxee gars yi génn dagg ko naan kii nana nii la mais <laughs> man sama xam sama xam <laughs> sama xam-xam bu gàtt. joué wuñu fi loo xamante ne lu nit gisul la. yu gën a garaaw ngay gis ci mbedd bi yow mi góor nga dangay génn ci biti gis yu gën a garaaw tasewoo ak man ba gis ma may soloo noonu mm-hmm. tasewoo ak man ba gis ma may waxee noonu mm-hmm. mais dañuy jàngale mm-hmm. kumba yàlla defal na ko teraanga léegi kumba ci atome yooyu la ñuy jaarale benn message pour gars yi bàyyi ko xel il faut que ñu ni kumba atome yi na koy wane ñi may seetaan yëpp nga yaakaar lan moo tax ñu may seetaan mais am na ci ñoo xam ñu ngi tiire ay leçon de mm. bu baax amul ñoo xam ne moom comme consort moomoo gi la ginze ci série 15. ñooñu samay taalibe loon samay taalibe loon maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. muy lu am solo loo xamante ne xëy na ba tey ci waxtaan ak moom rek ni ñu ko fekkee ci màggal gi waaye mënul woon ñaax aussi ñu laal tuuti ci profil bi nga xamante ne moom la ko euh, sénégalais yi xamee mu ci développé lu am solo euh, tey aar bi bu ñu la doon laaj li la gën a neex ci aar bi nga dund ko ci wala lu la gën a metti lan la. lay jóge wala ci loo dundale ci biir série bi wala lan la. amul ci nit yi amul man je pense que nit yi mbégte rek laay am ci ñoom parce que euh, bu fekkente ni ay wax yu négatif la wala des choses comme ça man nit ki jël téléphone am jëndalu ma ko connexion charge joxuma ko chargeur moo jël téléphone am connecté wu commentaire benn commentaire bu négatif. dama ko bëgg kooku parce que am na temps ba may bàyyi xel. comprendre nga am na temps ba may bàyyi xel dama ko bëgg te boo xoolee au fond daf may bëgg kooku noonu parce que bëgg maa tax tout le temps muy xool li may def pour dem di ci wax donc ñooñ dama leen di bëggee sama fans yi moom dama leen di bàyyi ak yàlla rek yàlla yàlla defal ñëpp jàmm awma lenn loo xamante ni lu may fàttali ko lu ma dund lu naqadi ci aar bi franchement depuis ma commencé ba tey maa ngi sant yàlla et que noonu laa bëgg continuer ba jour bi yàlla naan fii lay lay jeexee macha allah muy kàddu yu am solo waaye ba tey rek ci fàttali ci kàddu yi nga xamante yëkkati na ko ci personne ak personnage pour nit ñi gën ko mën a xàmbee man dama koy bàyyi xel ci STM waaye jàmbaar la yoo xamante ne gis naa ko ci li nga xamante ne yaa ngi ciy nit ma yaree la et sama yaay dafa may wax tout temps mhm. li may teral maa koy liggéeyal sama bopp nit mën na ma may ay milliards mais man li may teral dëgg man maa koy ñaqal sama bopp. li may tàggatoowee ak yow sénégalais ñoo ko ñoo ma ko yóbbante Kumba mariage quand. <laughs> Ah, man ñaanal leen ma nan ma ñaanal. ku fi ne. ah ñaanal leen ma. Ah, yow commencé ci yow ñaanal ma. gaa yi laaj mariage quand xew yi bëri na ci artist bi ñu ngi gis euh, artistes yi seen biir ñu ngi takkante di sëy seen biir mu doon loo xamante ne lu sénégalais rafet loolu naka nga ko dundee yow takkante bi seen biir. waaw franchement lu rafet la parce que ñaari nit yu bëggante ba takkante moom loolu dañ koy rafetlu hmm. voilà. yal na leen yàlla defal jàmm ah, euh, sunu sunu mbokk yi sëy sëy ñu sëy yal na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp ñi ci amul yàlla jox leen jëkkër comme sama genre gi mm-hmm. yàlla baax na bu jotee rek yomb jaral jarul yàkkamti ah, mm-hmm. yaa daaxaate wala mm-hmm. wala gaa yi ñëw yàllaa ko tuddagul xam naa rek ah. yàllaa ko tuddagul yàlla bay sa tool kon mu ngi ci yoon <laughs> waxuñu oh, lool moo ngi yoon bi incha allah. Hmm. Ah, baax na mi ngi ci yoon bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom indil ko ko te mu gën ci moom waaye di kontaanaat bu baax a baax a baax ci dalal ko fii ci Sénégal Buzz 221. Ah, seqoon ak moom waxtaan ci li nga xamante ni moo di màggal gi ak it image bi nga xamante ne sénégalais xam nañ ko mu leen ciy bégal bu baax a baax a baax ma bàyyi la rek nga joxe dernier kàddu yi ci li nga xamante moom la ñuy tàggatoo. maa ngi bëggee ñëpp di ziyaar gi te di ñaanal ñëpp nit ku nekk li mu bëgg si ko yàlla defal lu ma gën a neex si màggal ren gi genre mën naa ni fi may dal daaw dama fi ñëw par exemple bu dee quatre personnes a fi nekkoon tey ren ji diis nekk nañ fi ambiance boobu rek ça me fait plaisir voilà parce que man dama bëgg fu nit yi di daje di lekk di naan di kaf di foo di ree même bu dul màggal sax dama ko bëgg sama gën sax noonu laay def moo tax bu ma gisee loolu damay gën a kontaan macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax ci jàkkaarloog yow fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf merci beaucoup. jërë ngeen jëf.